Ah, asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv point com ñu ngi leen nuyu di leen ziar comme ni ngeen koy amee rek tous les samedis jutee làmb ngeen ko jon koo gis ñu nekkoon ci kor gi nekkoon tam ci combat Gris 2 ak Reug Reug moo taxoon boobu ba léegi mënu leen ko am waaye jutee làmb ñëwaat na di ngeen ko am tous les samedi waaye Mohamed balaa dara dañuy dem ci sommaire bi te ñëwaat. sommaire bi tey Mouhamed fañ koy commencé mooy fi ma ko commencé rek diggante Gris 2 ak Reug Reug combat bi war a am tey ci samedi bi mu war amee fële ca léew fële ca arène nationale lig na ko laay tëgg ko am combat spécial bu ci am diggante génn Diène Kaïré ak Quench bu bari ñi waaye am na beneen combat spécial diggante Thiat la ak armée waaye loolu buñ dañuy dem seetaan ki nga xamante ni mooy soq ak Sa Thiès am na luñ ci wax ci combat bi joxe nañ ci seen xalaat buñ ci jógee ñu seetaan promoteurs yi ñoom ñi nga xamante ne joxe nañ ci seen xalaat jóge fa dem seeti Pala Diop ak ki nga xamante ne mooy Ibra mbay ak ki nga xamante ne mooy Kati Diop ñoom ñett joxe nañ ci seen xalaat ci combat boobu noonu buñ ci jógee dem seetaani Boy Bawal ak Marley ñoom ñaar tamit xam ne ñoo war a bëre ci dimanche bi ak Assane Ndiaye stadium Iba Mar Diop di la 16 bi loolu da ngeen ko am ci luttetv.com Mohamed ñu dem ñëwaat. ayoo ñu dem seetaan Sa Thiès Mohamed ak ki nga xamante ni mooy Sokh ñu ñëwaat. moom laa ma ne làmb ju neex la xam nga ñaari xale lañu tolloo doole tolloo doole am fit mën a bëre. te jàpp naa ñoo tolloo doole ñoo tolloo bëre. Reug Reug mën na bëre kenn du ko weer Sénégal ko weer de naa fekk nga mais Gris 2 bërekat yëpp daf leen daan te ñi ñaan ñoo toj ba euh, simple ba ñëw ci moom ñëpp da leen ñu daan. kon bu doon mbër la boo xamante ni sóoruñu ko ci bëri aussi doo ko fi def nañu waxante dëgg te yàlla tax. Gris 2 Reug waaw wuu combat bu neex la <laughs> combat bu neex la. wuu combat bu neex. waaw combat bu neex la. lan moo ko war a neex. waaw parce que fi ñu toll la ñoom ñaar ñaari mbër yu amul defet la loolu da ci joué mais aussi seen différence de de de taille ak ak poids bi da ciy joué mais aussi seen qualité ñoom ñaar da ciy joué parce que Gris 2 mbër la moo xam ne. mën na bëreem nit ñi duñ ko gaaw a gis parce que saa bu defee action mu am résultat kon kooku en général ñu bëri dañuy jàpp ne mënul bëri mais mën na denc lu mu génnewul mais rek rek axmatu lu muy prouvé ñëpp gis nañ li muy def moo tax ma ne combat bu neex la. combat bi est-ce que xeex mën na cee bëri. non làmb nag moom du biir day xëy rek wasin làmb noonu la mën a ñëwee man boog en tant que mbër du ma mën a pronostiquer si benn combat parce que xam naa ne làmb noonu la mën a ñëwee mais wóor na ma ne combat bu neex la. Euh, dina jafe nag pour ñu waxoo parce que buñ demee ci cadre de gis nañ rëg-rëg maal ma a fi ay poids lourd kon kooku doo ko mën a accentuer quoi par contre euh, Gris 2 moom xam nañ na lambam bu jàppee rek day def dara malgré poids lourd la mais poids bi wanewul ci benn benn benn handicap xam nga moo tax wax ci ay pronostic dina jafe xam naa daal combat buy neex la ah waaw combat la de moom lamin combat boobu noonu li may waxoon rek laay waxaat kenn mënul sa morom ñoom ñaar ñëpp cinquante cinquante la. Gris 2 bu mën a bëre la ba pare moom boppam rëg-rëg champion la lu mbër di def ci làmb def na ko lu ay moromam mën mën na lu ko raw def na lu ko raw ndaanaan la cinquante cinquante la ñoom ñaar Gris bu ko gars jox favori ci xeex bi rëg-rëg bu ko gars jox favori ci bëre bi mais rëg-rëg communication bi ma dégg mu def. man su ma doon moom ci communication bi lay yem du ko indi ci làmb ji ndax dégg naa ko mu wax mu ne Gris 2 nii Gris 2 bu ñëwee dama koy attaqué duma ka daan ko bu indee loolu mun naa juum champion la ndaanaan la waaye ka muy tamit sampion la te ci écurie bu mag la nekk dama koy wax ni ko man su ma yoroon Reug Reug di ko indi dama naan ko combat bi lu mu laaj da ko war a def mais warul ñëw indi dama koy duuma dama koy daan su ko indee mun naa am lu ko naqari. moo war Reug Reug déglu moo ko war wala attaqué Gris. non non Reug Reug du mbër taxaw. Gris 2 tamit du mbër muy taxaw ñoom ñaar par force dañuy daje rëg-rëg bañkat la Gris bu ko dàqee du arrière day taxaw bëreeg moom te taxaw bëreeg moom mooy logique parce que xale la te yàlla dimbal na ko am na kattan kee attaquant la te yàlla dimbal na ko am na kattan li ma lay wax mooy ñoom ñaar ku ci may moromam dara yaakaar ni yaa mën daanu ñibbi. combat bi day yàgg wala day gaaw loo jàpp du yàgg maa la ko wax fii combat boobu du yàgg. arbitre bu sifflé ñoom ñaar dañuy daje bëri ñibbi. aywa ñoo ko gisandoo Mouhamed déglu nga Sokh déglu nga Sa Thiès ko ci nekk wax sa xalaat ci combat bi Sokh li ñu koy laaj ci ay combat bari na torop booy xool combat yi mag yi fa am yëpp tàll nañ ko suñu ma micro laaj ko li nga xamante ne moom la ci xalaat mu wax ñu ko Sa Thiès tamit li mu wax leer na trop nee na Reug Reug kenn werantewul ni mën naa bëree ku war a bëreekat rek demal ci Reug Reug waaye gr 2 mi mu bëree nag dafa daan ñi nga xamante ne dañuy wax ni mën nañoo bëre kon ñoom ñaar ku ci nekk ci ñoom ñaar mën ngaa bëre waaye gisul ni combat boobu am na favori soq tamit gisul ni combat boobu am na favori waaye bu ñu ci jógee dañuy dem ci promoteurs yi ndax bu dul dara ay amateur lañ ci lañ njëkkee jóge fa nekk ay promoteur di tëgg làmb am na ñu ci wax seen xalaat nañu dem seetaan loolu te ñëwaat. c'est que ñaari mbëri dama leen a xam nag su Gris dëggalee boppam xeex mun na am dara mais su bàyyee rëg-rëg mu bëre da koy daan ñibbi. su ko bàyyeeg bëre bi da koy daan ñibbi mais su su encaissé ñaari kuy ñaari kuy euh, giri deux dootul bëre te nag bëre day laaj doole te giree ko ëpp doole. muy favori. non cinquante cinquante la ndax rëg-rëg daa mën a ci bëre bi giri deux mën a ci xeex bi loolooy cinquante cinquante. combat la combat amateur la giri daf na fi ay preuve rëg-rëg pareil rëg-rëg champion la sur simple. mais itam bu ñu bu mu bu jàpp ni rek euh, Gris 2 rey ñëw xeex parce que mun na ñëw bëre tam te su bëree mun na bett Reug Reug Reug tam su ko Gris 2 bàyyee mu liggéey day doy waar combat bu doy waar daal waaw. combat la. combat kumpa la. combat mooy combat boo xamante ni bii ñoom ñaar ñi ciy bëre ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk gars yi gisaguñ sa jël mën naa ne la donc nu mu fort Reug Reug dafa am fu mu mais ñoom ñaar kenn ku ci nekk dafa am loolu avantage ci làmb ji. avantage su mooy avantage su Reug. Gris 2 am mooy taxaw samp xeex ak moom xeex bu Gris Reug Reug mos a gis li avantage am mooy combat rapproché bu déclenché mu jàpp ko waaw. jàppante daal bu amee sans su Reug Reug. nuru na ko bu dee liñ wanee gun ci liñ gis buñ jàppante mais gis naa état de forme Gris 2 bu garaaw attention Gris 2. Gris 2 Reug Reug dina naqari nga wax favori bi nag. parce que combat bu neex la combat boo xamante ni amateur yi moom la doon xaar tey Gris 2 musul daanu te gis nañ li mu def ci làmb di yaakaaru paas tamit rëg-rëg ku na gis na li mu def kenn du ko naatable mais musul daanut ah dina doy waar daal xam naa la 15 moom dina yéeme lool lool. ñaari mbër la yu mën a bëre ñaari mbër yu mën làmb Gris du daw lamb dafa mën lamb rëg-rëg kenn waxatu ko dafa mën làmb kon li leen di xamal ne que le meilleur gagne ku ëpp supporter nga daan. aywa ñoo ko gisandoo Mouhamed promoteurs yi am na ñoo xamante ne wax nañ seen xalaat ci combat Gris 2 ak ki nga xamante ne mooy Reug Reug ba léegi rek nee naa la ci samedi bi lay am tey ci samedi bi lay am fële léegi ñu jël suñu bagage ñun tamit dem jox leen ko ndax làmb ji du am en direct. waaw di wax sénégalais yi làmb ji incha allah pay per view la. ñëpp xam nañ ne luy doxal làmb la. Hmm. kon pay view bii. Hmm. ay xale ko créé c'est la génération consciente. c'est c'est de di wax tamit sama supporter nekk extérieur yëpp lañ ñëw ñu jënd code yi. yéen waa diaspora soxlawul nag ngeen di jënd code benn yoon gànnaayoo leen seen carte bancaire. man Bambaly Seck jënd naa sama code entre Gris 2 ak Reug Reug daw leen jëndi gaaw seen i dañuy toog ba dernier moment nañu teel a jël suñu ay disposition ndax ma wax leen ko fii ñoom duñ leen ko ñeme wax làmb ji bu amul pay per dee na chance ngeen am de jàpp leen ca de mooy leen ca. lu leer laa leen wax. làmb deewoon na presque. doxama dee sax waaye ñu ko doon rob ñu ko doon denc gas nañ ba ko war denc. ak PPV bi mbër mën na fayeeku 300 millions 400 millions. làmb ji du am télé. ñëpp a ngi koy amee nag ci seen affiche point com. PPV lay nekk waaye ñëpp ñi nga xamante ne bëgg nañ koo seetaan tamit mën nañoo dem jënd seeni i ci EDK yi leen gën a jege. am leen ci station EDK bu mu mën a doon jënd leen seen carte ngeen gratter gis code bi nga xam ne moom ngay dugal ci seen affiche point com nga tàmbalee gis lépp loo xam ne war naa xew le 15 juillet ci arène nationale diggante Gris 2 Reug Reug Quench Diène bu benn baraak ak caat bu booy bambara yéen ñi nekk bitim réew ak seen carte bancaire ngeen di fayee ngeen dugg ci seen affiche point com le 15 juin bis la di bisu lamb wala ñu ñu xool seen carte bancaire dugg seen avis point com dinañ seetaan li nga xamante ne mooy làmb ji ndax yaakaar naa ne làmb am solo la ko Nicolaï war cee féete li nga xamante ne mooy ay vingt ans ndax quatre-vingt-dix-neuf la duggoon ci làmb ji ba ñaar fukki at mu war koo féete yaakaar naa ne amateurs yi ko Nicolaï jox na leen combat yi ngeen bëgg yëpp jox na leen ko 2012 Yaxya Diop Yékini ak Balla Gaye moo leen ko joxoon 2010 Balla Gaye ak Modou Lo moo leen ko joxoon mu jëloon jox 2018 Balla Gaye ak ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux kon yaakaar naa ni ameen ngeen ko njukkal dem feesal stade bi ñu mënul demee stade ñu dem jënd seen i code ñi nga xamante ni ñoo ngi ci diaspora bi ñu dem jënd seen i code ñoom tamit ci seen ay carte bancaire waaye ñoo ñu kese waxuñu ci Kati Diop mi nga xamante ne entraîné na Yaxya Diop ni entraîné na Moustapha Gueye moom tamit joxe na xalaatam ci li nga xamante ne mooy combat bi war a am fii ak ngoon waaye nag Pala Diop mi nga xamante ne mooy yor rëg-rëg wax na xalaatam ci combat bi ki nga xamante ne mooy Ibrahima Mbaye tamit ñëpp xam ko ak Fass mu nekk entraîneur nekk manager moom tamit wax na xalaatam ci combat bi ñooñ lañ dem seetaan leen te ñëwaat. mu dalee sama kaw ñu bëre ma daan ka bu taxawee. bu taxawee ma fekk ka fa duma ka daan ka. amuñu tiitukaay ci kaw suuf waxuma la tiitukaay ci làmm de ci àdduna ñun dara safuñu si. maa ngi lay fay. yaa ngi waaj sam waaw incha allah ñu ngi waaj. ana rek. mi ngi mi ngi mi ngi këram. noppal wala mi ngi ci entraînement yi bale. waaw am nga période bi période récupération la li ñu doon def yëpp def nañu ko léegi nag dañuy toog rek saytu combat bi waxtaan ak boroom xam-xam yi ku nekk indi li nga xalaat ak moom li mu yor ñu dajale ko tënk pour mu mën a am lu muy indi ay argument yu muy indi làmb ja waaw. da nga koy xeexloo wala da koy bëreloo. lépp lu làmb ji laaj rek danañ ko def bu soobee yàlla di ñaan yàlla may ñu ndam. combat boo xam ni kii dafa toj mbapat yëpp nekk tamit champion d'Afrique. ñëw commencé def ay preuve am daan nag un gros morceau muy Elton ñu ne kon xaj na ci poids lourd yi ñu boole ko Gris 2 mi nga xam ni moom ku jóge ci simple bi ñëw ak say diplôme diplôme de champion d'Afrique boo ñëwee mu éliminé la ñu boole leen waaye li jaaxal nit ñi nekkul ci bëre bi li jaaxal nit ñi ci xeex bi la nekk kii dem France entraîné ji yokk ay potentiel am ci xeex kii dem Amérique yokk ay potentiel am ci xeex suspense bi nag fa la nekk xam naa lenn moom ci euh, Gris li ko gabareem may ci bëre yëpp mi ngi moom kon kenn du wax ni mënul bëre ndax li ko gabareem may yëpp da koy utiliser loolu moo tax muy am victoire yi muy am waaye xam naa tamit euh, rëg-rëg mbër la boo xam ni moom lu ko xolam ko xelam jox rek ci bëre mu def ko te du mbër muy arrière ñaari mbër yoo lañu yoo xam ni du ñu song ci suuf mais songum kaw lay doon seen bëre daal ci ay wet lay jeexe da wax benn wax bu doy waar du ñu song ci suuf ci kaw lañuy ñuy ñu gis poids bi Gris 2 yor Reug Reug bu ko songee ci kaw lan moo ko ci mën a bu ko songee ci kaw c'est que du bëreeg moom ci kaw day bëreeg moom ci ay wetam te it Gris foo ko fek mi ngi pré mi ngi lal benn padd boo xam ne saa yoo koy wër mu fàdd la. fàdd est-ce que mën naa daan rëg-rëg. non rëg-rëg nag kenn munu koo fixé fenn parce que yàlla may na ko ci yaramam loo xam ni lu mu bëgg a def ci bëre da koy def. mooy favori combat. xam nga lan mooy différence bi euh, rëg-rëg bis en avant lay bëree du jël du utiliser jëmmam ba mu jeex bis en avant lay bëree loolu mooy premier avantage am. premier avantage mooy bis en avant lay bëree loolu bénéfice la ci moom kon nag combat boobu ñu ngi ciy xaar yu bari yoo xam ne ay surprise lay doon non amul favori amul favori. ñu leen di fay. ñu ci jàmm ñu si jàmm. li laa gis gis ci làmb ñu lu ko waral. waaw sama tànk bareetul si làmb. Hmm. sama bëriwul rek du may ñëw. Ndakaaru nu mu nu mu demee instant bi mu ngi dox wala doxatu. waaw yaa ngi koy seetaan. seetaanuloo ko ah xam nga naa mu ngi dox wala doxul. moo waral doxul parce que Ndakaaru toogoon nañ fi ay at ngeen teel lamb ji kenn mënul wax écrit te doo tudd Ndakaaru. waxul te déggu wax ji dama ne la yaa ngi seetaan waaw yaa ngi seetaan nga ne doxul. doxul par rapport ak ni mu meloon. waaw ah, waaw c'est normal c'est ci dee feebar xa xa wér. mais yéen ngi ci liggéey bi pour mu wér. ah seetloo gisuloo gisuloo résultat yi ah doo seetaan te lamb waaw ah, kon ñaata ñaata résultat lañ defagum. ah ah ma la ko yaa ngi suivre làmb kañ comme na nga ne doxul. su ma nee doxul par rapport ak Yékini ba mu fay nekk laay wax. bu ñu wax war wax Yékini <laughs> Yékini na def na taam jeex na waaw. ñu jëm ci benn combat mu war a dox ci diggante Gris 2 ak Reug Reug. neex la combat ñaari espoir la combat bu neex la combat bu animé la combat bu dàq si mi la waaw. jàpp nga ne mooy dàq ci at. waaw ku ñaari ñoom ñu ku si nekk gis nga seen résultat li ñuy def. daw ko ba bu dàq si la waaw ñaari spar yu gën a wóor si Sénégal la waaw. rëg Gris nga mbër mu bëre ak moom muy Ablaye Ndiaye soo andi woon rëg rëg mu war a bëre ak moom lan nga koy def la. waaw dañu bokkul di yor ma rëg rëg Ablaye Ndiaye rëg rëg bokkuñu comme que Gris rëg rëg comme mbaam la ak Gris mais yoruma <laughs> si wax. lan foor rëg rëg. wax dëgg yàlla lépp la mu ne lépp. lépp la mu ne. xeex bi kan moo bi bon comme kii moo gën a jot loxo. giree gën a jot loxo. peut-être mun si ma li xalaat. war mun a waru mun a am avantage si xeex bi. bëre bi ñoom ñëpp mun a bëre. kan mooy favori combat. ñoo ko gisandoo Mohamed dégg nga Pala Diop. dégg nga tamit ki nga xamante ni mooy Ibrahima Mbaye ak Kati comme ni ma leen ko waxee woon rek ñoom ñett ñëpp ku ci nekk li nga wax xel nangu na ko donte Ibrahima Mbaye far na écurie Fass waaye wax na li nga ne xel nangu na ko Pala Diop faral na ak Reug Reug yor ko nekk ménagère bi mu duggee ci làmb ba léegi moo koy engagé wax na li mu wax tamit xel nangu na ko waaye Amadou Kati Diop nga xamante ne ndaanaan la yàgg forme formé ay mbër maa formé sa Fagué bu mu dégg daal rek doy na sëkk maa formé Yaxya Diop Yékini mu toog 15 ans nekk ko ci làmb ji daanuwul doy na sëkk kon yaakaar naa ne kooku bu waxee li muy wax war nañ koo mën a déglu surtout ko nga xamante ne buy day wax te ñaari mbër yëpp amu ci koo xamante ne mbërëm nga wax na xalaatam waaye nag ñun ñu ngi ñaan combat bi am ci jàmm ki war a daan daan ki war a daanu daanu lépp am ci jàmm ci fair play yeneen combat yi tamit ñu bëri ko ci jàmm ak sa salaam waaye balaa ñoo jeexal Mohamed dimas bi làmb day am làmb bi nar a neex diggante Marley ak Boy Baol ku ci nekk def nga open press damaa bëgg ñu dem seetaan tuuti ci seeni open press ñu ñëwaat. na ñun géejawaay lañ am ñu feneen xaj na képp koo xamante ne gis nga ko fii muy doomu géejawaay rek deretam moo yëngu ndax deretu géejawaay mooy daw suñu yaram ñun amuñu lu dul géejawaay moo tax géejawaay la ñuy nooyee géejawaay la ñuy tiitaroo ñëpp benn bopp la kenn ku xew la sa morom day def teewa moo tax tey bisu mel nii quoi. nga jëm si combat dimanche yaag yaag Boy Baol meen ngeen di ñaari mbër yoo xam ne seen saison daaw bi ngeen koy jeexal wala boog benn combat la ku nekk bëri ku nekk ñàkk maanaam ngeen am defet tey ngeen jëm ci combat boo xam ne yéen ñaar combat bu méttee métti lay doon combat boobu Marley nu ngi koy dundee actuellement. waaw combat bi ni koy dundee mooy ànd naa ak samay mbokku liggéey comme ni ngeen ko waxee man bi passé damaa bëre 25 minutes moom ay une minute lañ ko daanee xaw ma 3 minutes kon man ak moom yemuñu benn jour moo ñu boole muy la 16 ma jàpp ko duma ko daan ko indi ndam li géej waaye du ma taxaw ak moom ma ko dama ko dàq bëre. dama ko ëpp doole dama ko gën a capable dama ko ëpp fit lépp loo xamante ne mi ngi sa làmb maa ko ëppalee billaahi parce que moom comme bëri bu yàgg boobu ngay wax seetlu nañ ci ay combat yu bëri des fois ko combat faral na yàgg te bu yàggee du neex ci adversaire yi ñu koy faral di seqal de waaw adversaire ak man duñu benn mooy li ma ko waxoon rek dama ne ko bu jàppee ne ñi mu doon bëreel ak man benn lan mi ngi nax boppam parce que maa ko ëpp ay qualité fuuf maa ko dàq bëre mën naa di nelaw sax di ko wax nii ngay def ak nii kon man ak moom duñ benn billaahi maa ko daa ko bëri duñu benn gis naa technicien bu mag mu dem jëli ko muy Zarloo mu ne ci ginnaawam loolu yow gis nga ko Zarloo bu ñëwee si buntu ba layam Omar mooma mi moo ko dàq bëre fuuf moo dàq bëre moo ko gën a doon champion xaj na nag waaw yàlla suñu borom ak dogalam uh-huh. uh-huh. ko waa adversaire daal euh, ma ngi rek site internet yi ma ngi ko xam nga muy wax rek mais nag jour ba ah ma ne pare naa bu yeboo nag mu gën a pare waaw loolu laa koy ñaan daal mu gën a pare moom dafay xeex di bëre <laughs> te gaaw loolu teg ci gaaw na man xool ma xool ma instant ni ma mel bëre bu gaaw laa bëgg instant yi si fu mu yem neex bu laajee xeex ñu xeex bu laajee bëre ñu bëre bu laajee mystique ñu mystique ànd nañu suñu mbokk yëpp. waaw rawatina waa Njaan fi ma juddoo. ñëpp ñëw nañ. di préparer nee nañ ma sax ay kaar day jógee foofu. mais sëñ Fallou. waaw. boo ne waa Njaan dafa mel ni yow da nga misé ci mystique alors que sa adversaire ci liñ ko xamee ci bëre lañ ko gën a xamee. Euh, lamb lépp ngay andi guerre booy dem sa arme yëpp loo bàyyi boo demee ci biir lamb ji mu wan la ko comprendre nga. ñoo ko gisandoo Mouhamed. déglu nga booy Baol ak Marley ñoom ñaar tamit ci dimanche bi lañ war a suba ci dimanche bi sa jëm Iba Mar Diop mu nekk làmbu xale ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk jóge ci defet Diène Kaïré moom mujjee daan ki nga xamante ne mooy Marley Boy Baol ama neex moo ko mujjee daan mu mel ne ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk fooy génne ngay wut kon komba bi mënul yomb ñoom ñaar ñëpp gisuñu sax ñoom ñaar kenn koo xamante ne say komba da ngay ñëw bëre ko ci bëre gu yomb Boy Baol ku ne ku ko xam-xam der la day bëre day xeex Marley ku ko xam xam ne bërëkat la ndaanaan la day day day day day def ambiance bu doy te bu gisee bunt day dem moom ay action am daf koy exploité ci nu mu gën a gaawee nu mu gën a rafete waaye Boy Baol nag mooy wër der rek ci làmb jàppal Boy Baol kon yaakaar naa ne Assane Ndiaye amateur yi jox na leen li nga xamante ne mooy làmbu amateur dëgg mu war am ci dimanche bi ñoom ñaar ñoom comme ni ma ko wax ci Gris 2 ak Reug rek nañ ko def ci fair play ba pare feesal stade bi ndax promoteur bi leen di jox xaalis loolu la soxla ndax sponsor yu am doole amatuñu ci làmb ji kon nañuy mobiliser di feesal stade bi béy lu ñu leen ko jaaye ñuy ñëw feesal stade bi ndax loolu mooy tax ñu bëriwaat mu mel ni JT làmb loolu la leen àndiloon di nuyu gars yi suivre Lutte TV point com yëpp ay mën a nekk si àdduna ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit Moussaï Couture borom parcelle doomu nday Gora Sock ak Franc ak Papa ak ak Modou Xarañ Lo Moussaï ñu ngi koy nuyu doomu nday Baslaay ak Ousseynou Laay moom a génnee fii tey Mohamed di ko wax nag am na foo génnee Babacar ak Talla Ndiaye Mouhamed a ngi nii Bulit TV dinaa ko àndi nga génne ko foofu ndax Olof Ndiaye nee na ko fóotal mbët roccil bar Abdou Ba xarañ loo maa ngi lay nuyu di nuyu petit promoteur bu mag bi borom Mbambey di ziar ñëpp di jox ñëpp rendez-vous samedi incha allah ci beneen JT Lamb JT Lamb bii di ñëw nag dama bëgg def ko ak vainqueur Gris 2 ak Reug Reug ku ci daan wala Coins ak Thiat ñoom ñoom ñeent ku ci daan bëgg naa ci tànn kenn def ak moom Lamb li leen leen andiloon di leen jox rendez-vous samedi bi di ñëw ak benn vainqueur ci ñooñu jaajëf